Nou khamal nyo le tamit ni ay janda mwen yon kote yon wot ke mwen yon federdou jiska se ke nyon kwe yon bou seksyon de recherche. Men gina ou bin kwa se eti di, dafa amat ay fe yon nouvo. Dousa ay fe yon nouvo, woy ay revelasyon yon bes yon mwen yon defal. Te lolo mounou nyo te nyak wak. Mwen lan, kom ni mwen kwa wak yon ti emisyon yi djaliye pote mwen defon ko, man degante won nak mwen mwen de fwa ti bes bi. c'est-à-dire bi ma koy njëkk dégg dama ko ne ñibbil sa kër deuxième fois bi ma koy dégg daf ma ne soreetuma dara àgg na mu xamal ma ni gannaaw ba mu raccroché ak man woowaatoon na keneen di waxtaan ak moom nee na waxtaan gi sax jotuta àgg ndax bi muy jàdd ngir di dem ci këram ñaari scooter ñoo ko interpellé ci li mu wax nee na ñaari scooter yooyu ñeenti nit ñoo fa nekkoon damay jottali ay waxam damay jottali li ma wax te nee bëgg na nit ñi yëg ko ñeenti nit ñoo ko interpellé nee na ñooñu comme ay mbër biñ ko interpellé dañoo wàcc ci scooter bi rek këf téléphone bi boobu pareegul sax communiqué nee na ci li mu ñàkk pare communiqué noonu ci li mu ñàkk pare communiqué mu ne leen delloo leen ma sama téléphone parce que pour moom sax ay agresseur la mais ci kaw loolu bi ñu jëlee téléphone bi kenn ki da ko ne Pape Abdoulaye Touré nee na dafa jaar ci turam ak santam luy wane ni xam na ko bu baax a baax mu ne ko Pape Abdoulaye Touré tey ngay mujj wax tey ngay mujj wax tey rek la ñuy rey sa jaar fu ñaaw tey ngay mujj wax nee na bu ñu ko waxee loolu kenn ki dafa jàpp ci ceinture bi xëcc bi mu jàppee ci ceinture bi xëcc bëggoon ko diri ngir dem ak moom mi ngi insister di xoolaale aux alentours pour mën a ut wàllu nee na bi muy wut wàllu faf mu séen ñaari gendarme yoo xam ne dañoo nekkoon en yi nee na ñaari gendarme yooyu bi mu ko gisee mu ne man fële moo gën a sedd ci man que fii parce que ñii dañ may rey te du am benn suite waaye fële kat fële suñ ma jàppee dinaa nekk en sécurité même su dee jàpp nañ ma dinaa nekk en sécurité rek mu yuuxu gendarme yi yuuxu leen au secours ne leen ñëw leen dimbale ma. ñaari gendarme yi ñëw fekk si leen ñoom ñeent ak ñoom ñeent lañu ak moom mi taxawoon muy juwoo nee na buñ ko fekk see mu laaj ñoom ñu laaj lan moo ci bi il était 23 heures et quelques nee na ñaari gendarme yi bi ñooñu ne ñun de le pape Malick Ndour recruté pour nous assurer sécurité wam actuellement ça c'était le vendredi dafa nekk émission Sen TV mu ne waaye kii da doon coordonné ak ay nit pour su à ak oto wam ñu yàq oto wam wam ko problème moo tax bañ ko déggee téléphone muy coordonné ak nit ñi si lañ ko jàppee pour bëggoon ko yóbbu nee na nervi yi ñoo wax loolu bi ñu waxee loolu moom ñu laaj ko lan moo xew mu ne leen lii ñii nii li ñu wax dara amu ci mooy man j'étais au téléphone dama doon wax téléphone sama kër a ngi nele ngay séen moom mooy wax de sama kër a ngi nele ngay séen léegi ma àgg dama jóge woon ci sama xarit di ñibbisi ñu jàpp ma ne ma dañ may rey te dañ ma doon yóbbu xool leen téléphone bi téléphone bi sax mi ngi ci ñoom dama doon communiquer te jigéen laa doon waxal nee na ñaari gendarme yi ne leen topp leen ñu ñëw leen ñu dem nee na waaye di ñuy dem gendarme yi dañoo jiitu ñoom ñu ne ci ginnaaw di dox ci kaw dox boobu ñuy dox ndeysaan nee na moom xelam dalatul ni ndax mi ngi naan à tout moment ñii mën nañu jàdd beneen ko ñu yóbbu ma wóorul moom ba tey xelam dalut nee na dafa daw agrippé wu ci ben gendarme bi te ne leen sama téléphone mi ngi ak ñom sama bagage yëpp mi ngi ak ñom ndax bobu dañu jël téléphone bi mu doon waxee ak téléphone bi nekkoon ci biir poche néna ci kaw loolu ñooñu récupérer téléphone yi ñu dem néna na fi ñu nekkoon ñom lieu bi ñu demoon daanaka euh, dañuy seen quand le nee néna waaye moom mënu la wax précisément fi la néna na ben benn genre quartier général la go xamné dañ fa toogoon ñoom ay gendarme kese ñoo fa toogoon ay élèves gendarme kese fa toogoon teg seen attaaya nee na ñoom li ñu soroon noonu sax mooy seen genre xaw ma munition lañ koy woowe xaw ma dañ koo génne woon ñi ci ëpp boog dañ ko génne woon tegee de côté pour se reposer mu ne il imagine que dafa jàpp ni boog dañ doon reposer wu ba dégg ni taal nañu fii wala def nañu lii ngir moom ngir ñooñu ñu mën a jug dem nee na waaye seen quartier général la woon nee na bi mu yegsee ba foofu un certain chef euh, Sow moi laaj ci lan exactement gendarme ah, de gis gis au secours indi te am na luñ ko jiiñ mu laaj ñooñu ne lan Ils kii def lan moy problème bi ne ko ko Abdoulaye Touré lépp li xew université yépp koy dañ téléphone def moo tax ñu jàpp ko indi kii mooy Pape Abdoulaye Touré lépp lu am université kas yeeg yépp daanaka moom moo ko def nee na bi mu waxee loolu ko chef sow laaj Pape Abdoulaye Touré lu xew mu nekk ko man defuma ci dara dama nekkoon ci yoon nii di ñibbi sama kër ne la ci ginnaaw la nekkee bi may ñibbi ci la ñu wàcc seen scooter këf sama téléphone dama doon sax communiqué ñu bëggoon ba yóbbu fax man maa gis gendarme yi woo leen wallu waaye man li ñuy wax ni defuma ci dara ndax soo leen seetloo sama historique d'appel ñi ma mujj waxal ñëpp ay jigéen lañu bi may wax téléphone sax ak kenn ki ci lañu këf téléphone bi ci man bi mu waxee loolu waa ji ne euh, chef bi ne ko jox ma sa téléphone bi ko gendarme di jox téléphone bi dafa déverrouillé téléphone bi rek gis ci bi muy déverrouillé la gis euh, photo Sonko bi mu gisee photo Sonko mu ne ko ki nekk sa photo profil loolu pour lan la kii nag xam nga Pape Abdoulaye dafa xam droit te ñu ko xam yëpp xam nañ ni ko sañ wax la mu ne leen sama photo profil bi yàgg na ci man mu ne man su ma neexee sax xanaa ma def Michael Jackson photo profil moom moo ma wax lii nee na bi mu waxee loolu ci la mbéj bi dugg temps ñu mbéj ko biñ ko mbéjee ci la élément mi ñëw jël ko mu ne jël leen ki ngeen yóbbu ko ci ginnaaw ci leen ko yóbboo ci ginnaaw nee na fa la torture yi commencé moom moo ma nettali li may wax nii du Yolande moo ko wax du keneen moo ko wax moom Pape Abdoulaye Touré mi ko dund moo ma ko nettali làmminam sama nopp bi mu waxee loolu waa ji ne euh, chef bi ne ko jox ma sa téléphone bi ko gendarme di jox téléphone bi dafa déverrouiller téléphone bi rek gis ci bi muy déverrouiller la gis euh, photo Sonko bi mu gisee photo Sonko mu ne ko ki nekk sa photo loolu pour lan la kii nag xam nga Pape Abdoulaye dafa xam droit te ñu ko xam yëpp xam nañ ni ko sañ wax la mu ne leen sama photo profil bi yàgg na ci man mu ne man su ma neexee sa xanaa ma def Michael Jackson photo profil moom moo ma wax li nee bi mu waxee loolu ci la mbéj bi dugg taa ñu mbéj ko biñ ko mbéjee ci la élément mi ñëw jël ko mu ne jël leen ki ngeen yóbbu ko ci ginnaaw ci leen ko yóbboo ci ginnaaw nee na fa la torture yi commencé moom moo ma nettali li may wax nii du Yolande moo ko wax du keneen moo ko wax moom Pape Abdoulaye Touré mi ko dund moom ma ko nettali làmminam sama nopp nee na bañ ko yóbboo ci ginnaaw dóor yi tàmbali seen xeetu baton yu noir yooyu dama xamul sax nuñ koy woowee xeetu baton yu noir yooyu te mu am jàppukaay nee na moom lañ ko doon dóoree di dóor ci loxo bi di dóor ci tànk bi ci articulation yi lañ doon dóor dañuy dóor dóor dóor ba sonn keneen jë ñëw jël aw di dóor neena ëpp nañu vingtaine di dóor kii su dóoree jox moroomam kii su dóoree jox moroomam nee na boobu moom mënatul nee na waaye dañ koo dóor ba benn moment jékki-jékki rek recevoir coup ci digg ginnaawam nee ndax gendarme yaa fa nekkoon élève gendarme yi waaye nervi yi ñoo nekkoon ci ginnaawam nee na bi ci ñom la jóge xéer lañ ko xañ ci bop biñ ko xañé xéer ci bop nee na daanaka ci la daanu nee na mais bi mu daanoo dafa melni ni inconscient mais mi ngi doon dégg mais presque amutoon réaction mënutoon réagir tellement que coup yi daloon na te métti woon na nee ni mu tëddee nonu di tordre de douleur nee dafa jéki jéki am kenn ci ñom ak ay dàllam ni mu ni mu mooy seen dàll yooyu genre ram jees yi nee dàll bi fii lañ ko teg ci dënn bi diggante dënn beeg baat bi teg dënn teg dàll bi pour bañ ko men pour maintenir ko mu bañ a bouger nee na ci la ndox bi ak suuf si si lañ ko sotti ci kawam biñ ko sottee ci kawam nee na boobu moom mënutuloon tourner nee na ci la perdre connaissance parce que nee na moment boobu xamatul lan la demee nee na bi muy yeewu sax dafa jàppoon ni ci géej la laboot wala genre yooyu nee na mais en tout cas suuf seeg ndox bi mi ngi ko doon santé bu baax ndax da doon étouffé nee na waaye bi mu jógee gis na ñu toogal ko ba mënote ko ci ginnaaw ñaari loxo yi la ñu mënote ci ginnaaw nee na kenn ci nervi yi jël pompe gaz ñëw ba ci kanamam pompe bët yi bi mu pompe bët yi bi muy tourné bi muy turne pour jéem a rawale boppam ci lañ ko dóor ak dàll bi ci benn bët bi ci la bët bi muuroo carrément li mu wax nii moom moo ma ko expliqué inventé wu ma jugewul ci man waaye moo ma ko expliqué tey amoon naa <laughs> amoon naa émission ci journée bi mais gannaaw ba ma déggee récit bi nga xam ne c'est tellement glaçant sama xol mayatuma woon ma war a mën a toog di wax parce que dama ne sama faiblesse kenn du ko gis buguma di wax ñuy gis sama rongoñ déedéet ma mag lolu vous, di wax ñuy une quelconque tristesse non non ma mag suis motax dama ñibbi tout bonnement à tête reposée mané dina def live parce que li kuko ko sa mbokk forcément kuko je inconnu sax lay metti ah, nee na gannaaw bañ ko tegee naqar googu noonu yëpp ak métit gi nee na de 23h à 2h du matin nee na tooguma am répit nee na xanaa moment bi ma xawee perdre connaissance nee na waaye tooguma am répit benn yoon nee ci lañ ma yóbboo brigade foire nee na ma toog fa tuuti oto ñëwaat jël si ma oto bu la nee na ñu sax dañoo civil woon nee na waaye dama tiitoon ba jàpp ni ñooñu ay nervi la fi ma toogoon bugguma fa jóge ndax je me disais que brigade bii sax moo ma gënal ñu may yóbbuwaat feneen ci lañ ko yóbboo fédère nee na ba mu àggee fédère bi ci lañ koy doog a notifier kii wam luñ koy waxatee garde à vue wam te biñ ko ko notifié ci la amee occasion woo xaritam boobu mu nekkaloon muy Malick

après suite bi xam ngeen ko mooy ci lañu lijjantee nan lañ ko mën a fajee ci la demee hôpital principal pour ay soins wam foofu lañ ko refuselee euh, certificat médical am mais n'empêche faj nañ ko fa ba actuellement comme niñ ko waxee double fracture la am ci tànk amaat fracture ci loxo bëkk yi lay doxee en principe ñaari bëkk yi la waroon a yor waaye ñëpp xam nañ ni ku ñu dam sa loxo benn bëkk yi ngay mën di doxee donc bien qui lay ak protège bravo jusqu'à ce que moi am ay retour de parquet section de recherche nous nuñ un mandat de dépôt te y a lolu parce que nan gens qui nit ki ko nous, nous ko certificat médical comme comme je le disais tantôt même les détenus ont des droits ñu bañal loolu dafa ñaaw